asalaamaaleykum Mamati Diop ak maam Ndokh TV tey jii dañ leen a ñëwaloon fii si marché Tivaouane si déglu taataan yi nga xamante ni moom la commerçant yii di naqarlu mooy lan ndax fii ñu nekk nii marché bi dañu su 3 heures yi na ñëpp tëj pourquoi Auchan di tijji ba 16 heures loolu lañ ñëwoon fii taataanal leen ko ñu xool élément bi dem te ñëw. lan moo waral euh, tey daje waa marché bi fii nii ci biir marché bi ak commerçant yi. waaw asalaamaaleykum mbokk ñu ngi di nuyu di leen sant ci seen teewaay. di leen waxal li waral daje bi tey mooy dañu am benn arrêté bu ñu jot démb ci suba mu jugee ci municipalité bu Tivaouane ñuy wax ni dañuy tëj à partir de quinze heures dañuy wàcc ni samedi ak dimanche bi dañuy arrêté eh, marché bi parce que dañu war a nettoyer marché bi. léegi nag ci biir loolu comme maire moom mooy suñu kilifa ñu nit waa marché bi tànn ñu jiital ñu ñun xibaar yi jugee maire yi ci ñun la war a ñëw. ñu jàpp ni maire deful liggéey bi war ci suñu diggante ñun ak moom parce que ñun bu ñu fi falee teg ñu fi ñu war a joxe information réelle maire lu loo xam ne si ni daf koy def da koy nas daf ñu war a con convoqué réunion toog waxtaan ko ak ñun bu ko defee ñun bu askan bi ñëwee ci ñun ñu am réponse claire bu ñu leen mën a jox mais maire yi ni mu ñu war a téye téewuñu te di ñu jàpp ni lépp loo xamante si nii day jóge ci maire di ñëw ci ñun war nañ ci am trouver benn premier point bi mooy quinze heures bi teel na deuxième point bi mooy mairie nee na dafay bale samedi ak dimance day tëj marché bi te gis nañu démb mi bale na démb si na démb si guddi marché bi waxoon ne da koy tëj te te tëju ko service d'hygiène ñëw na fi pompe démb mu arrêté ay nit par rapport ak Covid bi ñu nekk marché bi doxul ngay wàcc 15 heures bu tey liggéey si ñu bëri ñun rafetlu wuñu loolu muy information yoo xamante si nii daf ko def ba pare te beneen bi ci des mooy Auchan bi nga xamante si ni ñun ak moom ñoo yem même égalité ci dëkk bi muy marché ñun ñuy marché ñun démb tëj nañ 15 heures ci mesure yi nga xam ne si ni jot nañ ko ñu tëj 15 heures Auchan moom continuer ba 18 heures soit lan moom mën nekk ñun ñëpp dañuy ànd tëj quinze heures wala ñu ànd tëj 18 heures loolu mooy suñu naqar ci marché bi ñu wax ni municipalité bi ni muy doxalee ak askan bi neexuñu tey neexuñu ëllëg parce que lépp lu mu ci war a nekk lu ne dañ ko war a toog waxtaane ko parce que moom bu mu yi dafa wàcc ak tànkam ñëw laaj responsable yi waxtaan ak ñoom ñu ànd ak moom dugg ak moom ci biir marché bi def tour kon tey moom moo gën a xam ñan ñooy responsable marché yi bu ñu soxlaa ci wàllum politique ci ñun lay ñëw direct waxtaan ak ñun yor suñu numéro téléphone kon tey buy def lii te ñëwul waxtaan ak ñun pour ñun manque de respe la te ñun yaakaar nañ ni loolu warut dox suñu diggante ak ñoom ba ñu ñu tëj nag parce que lii ñun ñëpp ñoo koy xeexandoo kon lépp lu ci am lu ne war nañ ko toog waxtaanee ko loolu mooy suñu naqar yi. salaamaaleykum maa ngi nuyu journaliste yi yéen ñi fi ñëw ñun yéen ñi ñu woo ngeen teew si. di uh, remercier waa marché bépp ci gi ñun nag tey li ñuy wax mooy manque de communication bi am ci suñu diggante ak maire bi ndax moom mooy responsable dëkk bi ñun ñooy responsable marché bi. lu am loo xam décision bu ñu war a bu ñuy jël ci marché bi dañ ko dafa war a ñëw wax ñu ko ñu jox ko suñu xalaat mu wax suñu xalaat ñun waxuñu ko ñun ñooy décider. mais am nañu pouvoir boo xam ne comme mbas mi dugg na ci dëkk bi te cas communautaire yi te ñun nous nous sommes euh, ci ci bi lañu bokk dañoo bëgg bu lu ñuy def ci dëkk bi ñu ñëw fii wax nañu ko wax ñu ko ndax ñun bi ñu nekkee ci marché ba léegi toujours dañu respecté respecté nañu euh, décision yi ñu fi def waaw mësuñoo def benn loo xam ne mës nañu man man nga ni lu jalgati la léegi nag mais ñun ay responsable lañu dañoo bëgg ku ñu yëg waaw ku ñu yëg te minimum de courtoisie mooy nga ñëw ngay ñëw ci marché bi rek nga ne ñan ñooy responsable marché bi nga ñëw wax ak ñoom décider ak ñoom li ngay décider ñu wax la li ñu kii ndax xëy na rëq-rëq yi am fii yëpp su su ñàkk a waxtaan yi moo moo ko waral te ñun biñ ñu falee ñëw nañ dem nañ ba ci monsieur le maire ñëw toog discuter ak moom wax ak moom ni ko léegi dañoo bëgg lu ñëw ci marché bi nga ñëw fi wax ñëw mu ñëw théoriser ñëw nii léegi man gestion down up laay def dinaa ci suuf laay jëlee jëm ci kaw mais loolu lépp ñun gisuñu ko te dañoo bëgg nag loolu mu deñ deuxième cas bi mooy wàllu démb wàllu Auchan loolu ñun dañ koy dénoncer ndax fii Tivaouane ñun xam nañ norme yi fi Auchan yi duggee yëpp respect xam nañ respect yi ñu war a respecté lépp respecté wuñ ko mais fii Tiwaawan dong nga gis fii Sénégal Auchan ñëw ci dëkk ñu yaatal ko amul benn coow amul benn wax tey nii la la waa Tiwaawan mës dégg commerçant yi di wax ci affaire Auchan ñun nag waxuñu ñu ñu ñu ñu gëne lañu ci Auchan yooyu mais comme dañoo nekk ci wàllu affaire concurrence nañu respecté ñëpp teg ci teg ci égalité des chances. Mm. Auchan jaay ñun ñu jaay. Mm. waaw léegi bu bu bu bu bu buñ ko bàyyee nag moom mu continuer trois heures. Mm. ñun dinañu ñëw ubbi trois dinañ ubbi. c'est aussi simple dinañ ubbi. ba 18 heures ba heure bu mi kii ndax ñun nous sommes des citoyens ñoo ngi fi ñëw nañu fii dañuy fay suñu patente di fay suñuy droit di fay lépp. ay citoyens modèle lañu di fay suñu droit de stationnement mairie am na loo xam ne duñ ko nangu. te tey lañ koy wax ba gën koo wax ndax fi ñu toll nii jamono ji ñun mësuñoo am ak confrontation toujours dañoo opté pour paix sociale am ci am ci dëkk bi. léegi nag comme ñoom bëgguñu bëgguñu bëgguñu consens bëgguñu consensus bu ñëwee ci marché bi dañuy defee ni ñun ay xale lañu. te ñoom ay responsable lañ ñun mais ñun tamit ñun ay responsable lañu. responsabilité nag yi yi yi ñu yi ñu yoreel bu ñëwetee ci marché bi nañ ñu koy jox loolu mooy wax ji ndax. loolu daal laa amoon lu may wax l'essentiel daal na ñu wax li li gën a am solo mooy bu ñu defati ci marché bi nañu ñëw wax ñu deuxième point mooy Auchan moom ñun bañuñu Auchan mu ñëw ak bañuñu suñu yónneewul ci Auchan mhm. mais nañu teg égalité des chances buñ nee Auchan huit heures huit heures lay ubbi nañ ko nañ ne ñu huit heures ngi buñ nee Auchan temps lay tëj nañu tëj Auchan mais démb li fi am jaaduwul bëgguma sax def publicité Auchan waaw mais nañu respecté normes yi nañu respecté li ñu gi wasalaamaaleykum. asalaamaaleykum wa rahmatulah. ñu ngi nuyu waa jërëjëf asalaamaaleykum ñu ngi nuyu waa Tivaouane gépp di am contentement ci daje tey bi daje bi nag li ko mooy gàtt na jëru muy gudd mooy ñu bëgg rek euh, ñu ak suñu kilifa ñu déggoo réeroo kenn bañ ñoo ci dara ak bu ñu sañoon tamit ñun ay doomu dëkk bi lañ gëm dëkk bëgg dëkk bi ñoom ñu naaw leen ñun ñoo leen fi teg naaw leen bu ñu sañoon tamit ñu naawloo ñun tamit delloo suñu gëdd ndax ñun mbooloo ñoon jiital doyloo ñu di ñu laaj ay renseignement chaque jour kon bu ñu sañoon ñu ñuy informé ba ñun bu ñu laaj ñu ma tontu ñu ñuy laaj xam lu ñu leen wax dogal bi ben ko jël dañu waroon a woo ñun kilifa yi woo ñu waxtaan ñu toog ci table waxtaan ba trouver solution su boobaa kon du nii mais xëy xëy ren di 15 heures tëj marché bàyyi yeneen marché ñu ñuy dox ba 18 heures loolu ñun rafetlu wuñ ko deuxième point yi may gàttal mooy marché Tivaouane mënul tëj 4 jours samedi dimanche lundi mardi Tivaouane mënul toog loolu te kon dina am yeneen marché dox te pompe bi pompe nañ bi ci guddi. Mhm. bale jarul 4 jours. Mhm. kon am na loo xam ne suuf. Mhm. kon yaakaar naa ni bu du ñu bàyyi marché ñu dox même ba midi. ñu wàcc kon ne midi ba 17 lu ne xaj na fi. mais mënu ñëw nii dañuy dañuy arrêté marché yi lundi mardi mercredi jeudi vendredi 4 jours. yoo xam ne nii Tivaouane du benn marché yeneen marché yi du profité doxaale kooku ñun mënuñu koo d' accord. bu du sañoon nag suñu kilifa yi 15 bi teel na mais nag comme ay kilifa lañ jox na leen ci trop mais dañ leen fal comme ñoom comme nañu jox suñu cër di ñu laaj xalaat ba ñun ñu laaj ñu laaj teewoon day dafa am ginnaaw jën ñu ngi taxaw di laaj ndax dañu dem wala géej frigo yaa ngi taxaw dafa am ginnaaw mbooro camion yaa ngi taxaw ndax dañu dem dara am fi mais loolu quatre jours teew mun ko mun ci koor gi ñu ngi doon um koor ñun léegi teewoon toog quatre jours du am marché loolu est que xel nangu na ko ci bale rek pompe yoo mën a guddi gi mën a pompe trois heures ba dix-sept heures mën nañu ñu organiser mais 4 jours moom te am nu koo toog du am marché samedi dimanche lundi mardi mercredi loolu mënu nekk kilifa yi nag ñu leen jégalu mais bu ñu sañoon ñu dellu suñu gëdd vraiment dañu lay xalaat wax dëgg yàlla jërëjëf awzu billahi mina seytaan rajim mbokk yi e, maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk turam ak santam e, di wax Abdou Amar sama adjoint maa ngi lay félicité di la ndokkale vraiment ci bés bi waaye Cheikh secrétaire général ñu ngi lay sant bu baax a baax eh, di la gërëm sa taxawaay président Lamine marché Kër Matar vraiment félicitation yàggan di yàgg nañ di waxtaan Tivaouane yëpp benn bopp la marché bi mooy marché boobu kon nag eh, dañuy sant yàlla bu baax a baax eh, lenn rek laa xam ne dañ koy adressé man dama koy adressé man de ma part personnellement en tant que président masse centrale bu Tivaouane Famara Sagna di Cissé conseil municipal euh, dama koy adressé direct ci monsieur le maire muy Diagne Sy Mbengue waaw Diagne dama bëgg mu mu rewaaraat bu baax a baax a baax ay feem euh, benn buur rek moo am mooy allahu mulku rabbu samawaati wal ardi njiit bu la dëkk tànnee ñu jiital la yow rek mënoo da ngay def consultation avec la population waaye Diagne Sy deful loolu bu njëkk ba buñ ñu falee dañoo dem ci mairie wax nañ leen lu mel nii lépp lu ñuy def nañu jokkoo ak waa marché mais dañ ko commencé après finalement ñu bàyyee boobu ba léegi woo sax woote ci boppam boo ko woowee sax doo ko jot dama la wax ne marché bi ñu nekk nii virus bi bu mu ñëwee fii ba léegi responsable benn bu nekk wax dëgg yàlla responsable politique ak responsable yi nga xam ne ay diine lañ ak ay aada ñoom ñëpp kenn ku ne woo na ñëw ci marché bi masawuñu coono mais service d'hygiène temps yële pompé woon na mais convocation la ñu jox dont laa def ñuy may sax defal nañu lu ñu neex mais daf ñu convoqué ñu réunion ak moom élève préfet wax dëgg yàlla ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant lu ñu nas bu nekk rek dañ ñuy woo jox ñu géddam suñu gédd ndax dañu tëj marché waaw tëj ñii bàyyi ñii muy doon kumba am ndey kumba amul ndey est-ce que ndax tëj boobu ànd ngeen ci waaw wala de waa ànd tëj ñii bàyyi ñii mooy xanaa ñun ensemble bi la ñuy wax ndax bu dee wàllu commerçant la ñoom ñëpp benn bopp la loolu yàlla da ko ubbi wala déet xam nga kooku moom il n'est pas même pas la question. àndoo leen ci. dañ tout continuer di jaay ndaka ngeen ban. non dama ne la kooku arrêtel boobu kooku n'est pas même pas la question. nous sommes pays état droit. bu dañuy ubbi. dégg nga tëj 3 heures. Auchan ubbi mu tëj trois heure bu ko deful heure bu mu bu heure bu muy tëj heure boobu la ñuy tëj. ñun musuñu koo def. dañuy yàgg a toléré musuñu mus musuñu def benn kii te am na yu bëri fi jaar mais dañ koo toléré mais lu ëpp tuur ah donc bi biñ ñu ko waxee aussi dañ ñu ko wax mais ñoom dañoo def li ñuy def ba pare soog ñu ko nañ ñu impliqué lu ñuy def bu nekk ñu bokk koo defandoor wasalaam